salaamaaleykum. soxna si na nga def. ça va chérie. yaa ngi ci jàmm. jël leen place toog leen. merci beaucoup. ça va. ça va alhamdulilah. baasonnoo leen ci yoon bi rek. yaa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah. oui je vais bien. yaa ngi ci jàmm oui ça va. ndax ñu ngi ci kawam. jàpp di jóge ka daanu rek. waaw day baax incha allah. allez incha allah yàlla baax na lan nga bëggoon. day bracelet. bracelet en or ou en argent. bracelet en or. היום קלאס חמונן או נורבגי. Ça c'est combien Ça c'est 600 000. Seydou Cheikh ma jàpp si combat bi. parce que man xew. te dama war a takk aussi. sors-moi tous les bracelets je vois. tous les bracelets en or. oui oui. bëgg naa lii. góor daal da lay mën a lépp. ñu jël dina desoon seen. fii lu rafet rek moo fi am. bi ñu mbéy de bi ñu mbéy de naay rek la ñuy jaay. bii moom defal 5000 rek ma jox la ko. lépp ci waxaale ba juboo rek yow noo ko bëggee rek noonu laa koy defee yow moom lu rafet rek laa lay jaay. 600 000 600 000 800 000 800 000 1 million 600 1 million 200 C'est l'argent, ça c'est l'argent, l'argent, l'argent, oh. Oui, à qui ça va Ah, c'est mon famille, a lâché loin. gisuma luy téye ko plainte ko ci moom aji faatu bàyyi ma mënuma problème bu ma am nga ne ma ma bàyyi noonu mu sedd bii yi may bàyyi mu sedd bii bokk si nu ma doon def bay natt moom xamu ko duma ko bàyyi mu sedd plainte bi duma ko retiré Hum. Attends, attends, attends, laisse-moi. Qu'est-ce que tu fous là On part On part Par où yow fan lañ jëm yow da nga dof yow wala yow la moo dal. mais qu'est-ce que tu veux. elle a yow xaar kii mu ñëw nga fay li yow ñu dem. elle a abandonné sa place ça c'est du de la valeur ça c'est de l'argent on y va on part. on part da nga am fit yow. Eh, on part. Yo, arrête. Hey, sors, sama xaalis du ma ko bàyyi noonu à chaque fois ma koy bàyyi noonu du ma ko def kii lim nekkee dañ ko cee bàyyi te ba ma demee bu fekkoon da doon wax ak man ci njëkk ak teraanga man amul problème mën naa ko bàyyi ak moom mais daf ma doon jaay affaire comme si que ne moom moo doon jël sama xaalis di ma nattal loolu du ko def. plainte bi duma ko retiré xalaatuma ko retiré sax yow na bu dee da ngaa man dinaa woo jaaga woo mama ñoom dinañ dinañ ma taxawu te xam naa li ma bëgg ñoom ci loolu lañ may jàppale mais plainte bi duma ma ko retiré de toute façon dama am ay client xaaral ma xool leen su paree naa la rappeler ñu eggale d'accord à tout à l'heure waa ani ñu toogoon fii ay sama ndey ay mun lii uy sama àdduna yàqu na man lan lay wax Saliou kii nga xam ne wóoluwul ku dul man waaye sama àdduna yàqu na bu ma gisee grand bi muy lépp léppal bagage am yu bëri mel ne kenn kaa yëre laa xamoon ne sàcc la yaase na ay waaye biisu yow ba yaase na waaye naka de biisu day yal fa lii du dëgg ay waaye lii du dëgg waaye lu tax man waaye lu tax man bu yaboo ma dëkk fii fii laay dëkk fii yow daal nee nga daal yow à chaque fois surprise nga may nga may nga may indil quoi chaque jour que Dieu fait. <laughs> kon yow li ma la wax déggoo ko xanaa pour yow nii. Hmm. pare naa pour nekk prison voyageur. ah bon. foo xam ne ma la fa yóbbu danga nga kontaan dama la fa yóbbu. man daal lu ma gën a neex ci yow bébé. Hmm. man sa taay moo may rey. <laughs> ma ni nga mel ni nga ndawee loolu moo gën a ne ngay dugg samay yaal yi. ngay dugg samay poxotaan jëm a jëm a coxotaan. affaire yooyu noonu. <laughs> non yow man da ngaa neexee man doo bare. non franchement parler c'est que je t'aime très très fort je t'aime très fort mon cœur. yow ku bëgg-bëgg na la. Oh. ah bon mais euh, dafa tàng ah. dafa tàng. bien sûr dama tàng. sama ventre dafa yàqu ok est-ce que je peux pas enlever ça. moo gën a waaw dama jël poids ba c'est loolu laa ci bëgg nag jël poids ah bon ceene neex na de ah oui <laughs> macha allah gis nga maa ngi commencé feex léegi bu baax man li ma gën a neex ci yow xoolal sa taay bi xoolal rob bi nga genre rob yi nga sol ah sa parfum oh sa parfum bi daal man parfum bi moo may rey parfum bi daf may daaneel jaral na ma ay million sa parfum bi. yii moom duma la man ça m'étonne saa ma ñibbee sama gàlle su ma eggee sama kër man sama xol du neex. ndax lan loolu. c'est parce que benn hippopotame laa fa am bi nga xamante ne du sangu balaa muy sangu nawet jot na sama jabar. lu ko jaral di. maa xam. jabar bi nga xamante ne dafa tilim pokotaan yi day xasaw ba c'est pas la peine. saa ñu tëddee man damay tëdd ba guddi ma commencé étouffer ça parfois. mais wula jërëjëf damay mujjee wàcc suuf ma tëdd fa. doo comprendre jabar bi nga xamante ne xoolal ween yi ween yi boo yëkkatee ween yi ah dafa didim ba c'est pas boo jëlee sa baaram takku nii àndal ak lu ñuul loolu ba genre femme la. ci jéeg buy sëy. jéeg buy sëy man ça m'étonne parfum bu xëyee jël arona bi di ko jéem a wisi biir salon bi xasaw xun. ah dundoo na lu ma gën a métti de plus euh, bébé tu comprends pas. Hmm. samay doom du leen toppatoo bu baax xale yi si canapé bi la ñuy defee seeni douche si canapé bi si salle bi te mu bàyyi toilette c'est quel genre de femme. sa jabar mooy def loolu lépp sa kër nga mu ñaale ko yow tamit. nag tu vois te en plus man euh, dara métti ma ah bu solee slip day toog une semaine ba deux semaine du changer slip bi. day moom day mujjee ab day mujjee boy sax buy dox mu écarter tànkoom yi tu comprends même ma moi je comprends même pas je te jure. bébé en plus xoolal fii am fii fii fii am euh, euh, mënuma la wax ban genre animaux laa koy laa koy laa la koy expliquer ah dafa ñaaw ba c'est pas la peine. ah man li ngay wax sax mi ngi commencé tey sama xel mi. xam nga sant de. man ça m'étonne ça ñu génne ci loolu comme sa kër mënoo faa am jàmm. waaw damaa bëgg fii nga am fi jàmm jege si ma nii. loolu moom mooy gën a neex nag. <laughs> ajana dafa neex de bébé. Aïcha. mooy sama oor ku ko jël maa nga si. nga ne. wuy gisuma ko. ba mu koy jël yëguma ko xaw ma fu mu jaar wuyu téléphone laa am ñëw fekk mu jël lépp yóbbu. ñu ma xoolal place ñoo ko gis xool nañ ko foofu yëpp teguñu ko bët Aïcha lii fan laa koy waxee <laughs> kii rey na ma rey na ma ma dee Aïcha lii fu ma koy waxee. di jooy 300000 ñu yóbbu ay millions. oui. <laughs> Sigil maa nga si lenn mi nga wax de. oui. bu <laughs> jooy déglu ma. maa nga si dangaa fàtte ba ngay ñëw kër ga ba ma lay woo naa la yaa teggi sa natt moonte natt boobu maa ma wax de maa si moo fa jaar. loo bëgg a wax foofu. Hmm? loolooy liggéeyam. ah lu muy def nag looloo ci gën a ndaw. loolu mënul ne. <laughs> loolu mënul nekk Aïcha. loolu moo am. kon kii sama alal la bëgg. moom man la topp. ndax xaalis boobu maa moom. musu bu jëlaat ay or. du yow waa déedéet waaye loolu mën naa ne manga si àdduna la ko def jarul jooy jarul jooy. waaye eh, sama àdduna yàqu na kay kay kay ñu àdd ci biir. nañ dem la ngay dafa neex na de. Hmm, yaa ma damay fo rek. ah. billaay. wóor na yàlla li ngay def moom macha allah lii moom macha allah du mosuma ko dund sama kër. waaw sëñ bi sëñ bi ko baax na kay wax ma la tàng sa bébé. ah man kay ñëwal ma simil la ko. voilà voilà loolu dina ma neex. fa tàng dama bëgg nga nekk. tey moom xam naa ni dara du yomb tey maa ngi yow. kay bébé dama am jot bi du yombal dara. fa nii. tey waaye lii. dinaa bëgg. waxala. jabar bi nga xamante ne chaque jour mu lay toggal ay togg yi nga xamante ne ay sombi yi doo xam doo comprendre ah foo jaar dëx. waaw tubéy bi dérangé wu la doo ko jëndee. kon nga dëgg dëppee. ah. sëñ bi yaa ngi seral nag man bëgguma lii. non non non non non non non bu lax loolu ah <laughs> xam nga lépp loo gis moom moolo moolo la ndanga ndanga rek affaire yi moom jarul yàkkamti. ah da nga koy def amul dara lu ñuy xaar fii. dañ ñëw dañ koy togg ba mu ñor tamit tamit du ma xale loolu dañ nga ni man xale laa bébé yow tamit ok loolu dañ koy togg ba mu ñor bul yàkkamti. yow daal gaawal rek mu yóbbu la ba 16e siècle. non yow daal bul simeeku. bay man maa la ñëw simmi nag dégg tey dara du yomb tey maa tey laa lay woon ni tey góor nga ko sikk góor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. ñëw rek. du ma daloo avance avance maa ak yow tey la ñuy mbëkkante tey làmba ji tey ku ci mën rek nga ne sama morom la. yow naa la sama alal nga defal nii. abe. waaw du xaaral ma simi tuuti yi xool. ñu def nii ba ci kanam rek dëgg neexu. Ah, neex neex yi ah muy gën di dem. xanaa doo simi sa sa kii bi sa survêtement bi loo mel ni ku ah, nga ma ragaluma ah, di la ragal. xam nga lii bëgguma mu déranger ñu benn yoon. ni ko suuf ah xam nga jóg toog tuuti ñu waxtaan. Hmm. waaw yu ma. waaw waaw doo simi nag sa yére yi nag bébé. dinaa ko simi dama bëgg ñu def nànk-nànk bu ko yàqamti. waaw simi rek bébé tamit jàpp ci. yii bu ko yàqam ci émission bi nii ma lay gisee nii damay kontaan damaa bëgg ñu xoolal ni nga cee nii xoolal sa dënn bi. ah gis nga de. nii daa ko moom yaay borom bébé. man su ma gisee sa dënn bi nii ma cee nii damay kontaan xoolal nii lii xoolal lii. bi man lii mooy sama point mort. man surtout boo laalee samay cos boo laalee samay cos rek damay bëgg a dee. ci sa jabar day fontu. <laughs> ah waaye bébé yow li ngay def neex na de <laughs> macha allah. ah maa koy yëg bu baax bébé. Ah, li ngay def neex na de. ah waaw ah, bébé bisu ma oh macha allah waaw ah, bébé xoolal sama point mort yi boo xëy laal nag xoolal damay bëgg waaw yow ah. bébé yow yaay champion bi yow yaay lépp yaay mën lépp yow yaay sama yaay yaay sama baay yaay sama lépp bébé. la neex def ma ko ah macha allah bébé yow yaa yow da ngaa jonge loolu rek ma neex ci yow jonge bi nga jonge rek a ma neex ci yow bébé. pour yow man ak yow nii. ak maa bëggaloon ndaw man li nga li nga man li nga ndawee rek li ndawee rek a ma ah yow. te laa lay fël-fëlaale ba nga jaaxle yow. oui xaaral may ma tuuti daan bëri bu ñu yàqal nii tamit. yow xool toogal rek bàyyi ko foofu ay bébé. bàyyi a bul dem bébé bul dem xanaa bëggoo ñu ràcc. yow boo defee pause tamit yow boo defee nga commencé lu neex ngay def pause tamit bébé. dina gën a neex. Ah, nu muy gën a neexee tamit a ah, ah jabar bi nga xamante ni saa dund sa duma ko sax dund xasaw xond di bandi bandilu sama kaw di cal cali sama kaw a ah, moom fii laay fanaan tey tey moom fii laay fanaan dew ma fen fii laay toog ba fajar ñibbi bu xëyee ma ne ko magasin bi moom dama doon dama doon def inventaire sama yoon new ci waaw bébé waaye yow kii jeex na de. lan kon yow kon sa papa mu ngi fi. Tu as reçu la vidéo gis lui ça. <laughs> na. on a déjà parlé sur ça toi aussi. hey eh, eh. tu veux de ou pas. bëgg naa moom. mais s'il te plaît envoie-lui ça. C'est fait. Pose son portable ici. Hey, il va t'appeler tout de suite. Sûr que Dinamo. <laughs> Et eh, il va le faire, ma chérie. Et tout de suite, tu verras. moom <laughs> xoolal may rek maillot de bain bi moom macha allah message je të të të waaye yow yaa may yàqal samay de waaw ok xam nga xool point mort man surtout boo laalee samay cus boo laalee samay cus rek damay bëgg a dee genre la quoi non c'est impossible impossible. non ñaax na ñeme ma def lii non c'est là il faut que je l'appelle il faut que ma woo ko laaj ko de truc là. يسمعون raccroché ne. nga dem envoyé ko dina la woo bu ma gën ma raccroché il va encore appeler dis-moi tu veux combien somme d'argent. loolu xaas rek. dix millions ça te va. oui ko jamono. dix millions waaw. il va encore appeler, hein, tu lui proposes une somme de 10 millions. Est-ce que dina ma ko jox Ça c'est sûr. Tu lui proposes 10 millions contre la vidéo. Non. Regarde. C'est qui Et il y a 10 millions si tu veux. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. La balle est dans ton corps. Allô Allô, oui Ça va waaye yow si lii mooy lan nii. xamoo lan la li nga gis xanaa. non Niania non non non non non non non loolu mënul ne mënul ne mënul ne c'est impossible Niania. c'est impossible. eh damaa bëgg nga dal nga ànd ak fii man maay commandé yaa ngi may dégg vidéo yi yëpp mi ngi ak man te pour nga jot ko danga may jox 10 millions wala du ma la jox dara yow nag yaay choisir di millions wala sa der yàqu ba faaw. mais yow quoi qu'il en soit maa ngi yow yow quoi qu'il en soit déglu ma rek waaye écoute ma écoute ma s'il te plaît écoute ma rek ma expliqué la soit yow loolu war laa mun a dugal ci loolu. mais yow boo soxlee 10 millions yow nga ñaan ma ma may la ko facilement c'est mieux. nga ni liquide laa bëgg déggoo li ma la wax xanaa liquide laa bëgg ok maa lay envoyé numéro bi nga ko envoyé léegi. waaw amul amul problème nañ dugg si détails yi après yow yow n'est-ce pas vidéo bi euh, propagé ko fenn. seede bi ci boppam laa soxla ci mu doon ça ok y' a comme problème y' a problème on se donne rendez-vous la fixé lieu bi ñu xool ma ma xool fa laa la fekk ok dans 30 minutes dans 30 minutes ma fekk la fa ok y' a problème y' a comme ok t'inquiète non mais quoi qu'il en soit yow man sama life sama àddina yow waroo ko mën a yàq. si une mu jot dix million mi je vais la dama koy rey carrément. <laughs> lii de mënuma ko sax gëm. samay andi jàmm surtout sama jabar bu ko gisee man sama àddina mooy tukki si kaa mooy tukki carrément waxatuma fii dëkk Thiès bi ma nekk nii samay dere yàqu mais si une ma jot vidéo bi je vais la et je badine pas sur ça. c'est vrai il faut que madame fekk ko. pequeño, Mangassi, il est prêt, il à tout. Regardez Mangassi. Regardez-le bien, regardez-le bien. Ce genre de personne-là, qui peut faire ses ablutions tout de suite et et dit que c'est du